السلام عليكم ورحمة الله معي لنيو بباخ باخ باخ وا ديبارتمان بو يورو فولا وا ريسون بو كولدا وا سينيغال ييب غيس نين لاك جي كاساماس دك بو ني نان دارو خدوس سي لا امي ما ام دك بي أنا ليبا لاك با جيخ يينغي صف غي سفارا بي يينغي غي سفارا بي لان نك ورالوكو بو ني امي يو ملني balaa nga fi balaa nga fi gis sapor day lakk ba jeex sapeur mu ngi doo ko yegg si dëkk bi jeex na benn oto bi ñuy indi <coughs> balaa ñuy yegg si dëkk bi jeex oto bi du mën dara ci dëkk bi loolu dafa yéeme trop quand sapeur doo ko fi gis doo fi gis yoon yu baax moo taxit lii bu amee ñun ñëpp problème yu dul jeex rek lañuy am waaw dara amuñ dara amul oto yi fi indi ndox yëpp yëpp yëpp ay matar kilu gambi la am doo fi gis benn oto daanaka sax bu Sénégal te fii douane yi fi nekk ak buntu buntu buntu frontière yi la taxaw di la sonnal mënuloo dem luuma ci benn dëkk di la jàpp ci kenn xamul di la sonnal heure bu nekk nga dëkk di fay impôt ba bëgg a dee te dara ba dara yi booloo jeex ci senegal munuñ la ko fi warlul <coughs> loolu war nañ ci bàyyi xel loolu nag waa département bi ñoo ko mun a xeexal seen bopp. maire bi waaw maire yi fi nekk xamuñ dara liggéeyuñ dara ñu bàyyi leen fii rek waaw utuñ benn solution ñi nga xam ne ñoo ŋànk département bi di ay njiit. kenn xamul sunu député yi yan façon député la ñu am député yu tekkiwul dara ci réew mi assemblée nationale doo leen fa xàmmee dara ci réew mi nañ bàyyi xel ci loolu waaw ok baax nañ ko